li def ñu ngi koy xam d'accord d'accord avocat Ousmane Sonko yi naam Ousmane Sonko moom demul woon la palais de justice tey euh, euh, avocat yi itam dañoo guddee bi ñuy joxe verdict bi fekku leen fa est-ce que nga jàpp ne tey ji bu leen fekkoon ak présence Ousmane Sonko yëf yi dina demee nii est-ce que yëf yi euh, ñoom duñu mujjee am ndam sax ci kaw wala sax condamnation bi moins que li li ñu def nii muy deux mois avec sursis. waaw mooy li ma la wax rek gis nga àdduna du kër waaye lu jar a sóoraal la. Mm-hmm. parce que justice bi fi toogoon 2012 toogaatu fi nii de ñooña dem nañ ñeneen ñëw ñii dañuy dem yeneen justice ñëw président ba ko toogoon 2012 toogu fa yeneen ñëw bi ci des mooy am réew kañ la daan bañ ab avocat wu jàmbur réew dugg ci dëkk ñu refoulé la immédiatement ne la génn la ñëw ba ci surgi ñu ne ñu ne avocat diw aj nañ ko wala dàq nañ ko. Juan Branco. Juan Branco ak beneen avocat bi bi nga xam ne nii. maître Ousseynou Fall jeex na. dañ ko suspendre suspendre nañ ko. benn plainte bu juge bi dóor. yaa ngi dégg. Mhm. yooyu yëpp nekk ay faits yoo xam ne nii dañ ko war a moytu si suñu réew. pourquoi parce que Mame Mbaye Niang jëlee na jël na avocat tubaab. Mhm. ñu bàyyi ko mu dugg ci réew mi. Olivier Sur ko dugg ci réew mi. Mhm. Ousmane Sonko jël avocat tubaab ñu ne ko doo dugg ci réew mi. refilé ko immédiatement yóbbu ko. loolu du yoon loolu lañ ne. ak lu mënti kaa xew nañ xool àq ak yelleef damay dégg nag ñu xamul dara ci luwaa naan non avocat bi na lay toogee réew nangam di wax ci président nangam nangam nangam avocat nga wax waxoo waxoo citoyen koo xam ne nii de avocat ay droit am dafa am yu ko may mu permettre ko wax ko réewam la ko waxee yow lim wax neex na la ak neexu la ba tax nga rafetlu ko dëgg la jóge na réewam ñëw kooku du ragal jógee na réewam ñëw du ragal la mu wax comme assaini na ko réewam la ko waxee ñëw dugg sa réew bu ñëwee taxaw ci tirbinal ci kanamu juge bi na ko juge bi laaj na ko avant may wax ak yow lan moo tax nga wax lii ak lii ak lii ba xam dana ko indil article yuy wane ne am na droit wax lii ak lii ak lii Ousmane du xamanteeg cuune du xamanteeg du xamanteeg baadalo beneen bi ci des ma dégg ñu bëri naan Ousmane moo ne woon dàq na français yi lan moo tax muy dem di jëli avocat français avocat réew mi nekk fii nangam nangam nangam nangam Ousmane Sonko bu ne dàq naa français yi waxul dàq naa jëmmi français yi. dàq naa jikko yi français yi indi bëgg ko installé ci réew mi moom laay jël génne ko jëmmi français yi fi nekkee nangoo utiliser suñ jikko ñun nangoo utiliser lenn ci suñu réew ñu def gagnant gagnant cinquante cinquante réew mi avancé ñu gis suñ bopp ñoom tamit ñu gis seen bopp d' accord naa mais ñoom ñu gis seen bopp ñun gisul suñu bopp ba pare ñu takk ñu mbuum njaabeel loolu d' accord ma te loolu képp kuy gor deret gor daw sa yaram na ko war léegi yii yëpp bu ñëwee taxaw. kon ah, kon ragal fi muy féetee ñëpp nga ko bëgg a xam oolu nga nit ki sa avocat jugee jugee réew ak réew nga bàyyi ko mu dugg avocat am jugee réew ak réew nga refilé ko mu dëpp wàññi kenn seen i avocat avocat yi seen i ñëw taxaw di wax nga refilé leen nga nga refilé leen génne leen taxaj def li nga bëgg def génn virgule teg ko ci taabal ji loolu lan lay bëgg a nuru ba ci des nag ñun xam nañ ne paree guñ pour am ak Ousmane Sonko ci dossier bi ñun xam nañ mhm. parce que li tax mooy liñ bëggoon dafa échec. liñ bëggoon ñoom. Ousmane Sonko coûte et coûte lu koy teree nekk candidature 2024. foofu am na lu ma am na lu ma am na lu ma émission bi may waaye danaa ko wax. Mhm. gis nga nit dana toog fa muy bëgg dogalee du xam lu fel xelam ba mu wax sax ba ba mu wax sax loo xam ne tey. d'accord da nga jàpp ne ci procès bi baatin def ci am. moo tax non pas pas baatin maanaam ndimbalu yàlla. Mhm. day am ci nitam chaque jour di jeex ci ay ay ay ay ay fay chaque jour mhm. beneen bi maa ngi félicité. juge bi nga xam ne moo joxe ndugal ndogal bi ci benn côté. lu tax nga koy félicité. merci li tax ma koy félicité mooy jël na charge parce que procureur bi dafa dafa joxe deux ans de ferme. réquisitoire ab sàkkuteef. waaw ab sàkkuteef mooy nit ki li muy sàkk moom la bëgg. Mhm. doo sàkk loo bëgguwul pour man la muy sàkk mooy nañ ko tëj deux ans te ci histoire wu àtte gisaguñ fu nit di laajee deux ans ñu jox ko deux mois six. xam nga xam xam nga euh, procureur mën na ne lii laa bëgg lii laay sàkku mais juge mën na bañ ni du ma def loolu lii laay def mais ci li jaadu laa wax li ñu gisagum ci atte yu atte yu siiw yi mhm. ki laaj deux ans lu mu gàtt-gàtt yoon maanaam xel ci xel six mois wala un an dagg un an bi da nga fi may waxee mais nag yii yëpp bu amee procureur euh, maanaam euh, juge bi jël ay matuwaayam xool stabilité réew mi xool li gën aussi tamit jamono ji ci Sénégal parce que économie bi doxul nit ñi doxuñu fii di dalul même ñi nga xam ne sax ñooy kilifa ci réew mi ak foo nekkee kilifa si fi dalul si lan si jour la 30. parce que tey bu ñu newoon Ousmane Sonko dóor nañ ko 6 mois contre nangam gars yi vérifié gis ne tere na ko nekk élection. maanaam ñàkk nekk élection fii lay commencé ci tey tey tey moom nag bu liiree loolu xam tolluwaayu réew mi mu jël mu jël lépp teg ci suuf jël li nga xam ne nii moom la moom mooy mooy dalal réew mi mu def ko loolu yoon la ñu félicité ko ci. kon nag dafa jàpp ni décision bi juge bi jël pour apaiser tension yi nekk ci Sénégal moo tax. bokk na ci sama yaakaar. Hmm. li tax ma ne bokk na ci mooy parce que juge bi njëkkoon a jël dossier bi. ñu dem ba mu des ay ay quelques jours mu del <laughs> mu delloo dossier bi kon daf lay leer na Ousmane ay mbiram sax ñu ko ñemee bariwut ñu ngi ciy poussé rek moo ci ëpp mais wallaahi ñu ko ñemee bëriwut te aussi tamit Ousmane nga jàkkaarloo moom di wax yomb na loolu mais maa ngi lay seddal ci yàlla ne jëmm ju du tiit jëmm ju du raf jëmm joo xam ne aussi fexe na ba ndaw sénégalais bëgg Sénégal waxuma fexe ne ba ndaw ñi bëgg bëgg bëgg bëgg nangam bëgg Sénégal parce que bu njëkk benn moom moo amoon. mooy nañ jaay réew mi jox ma sama wàll jox ma dem léegi ndaw ñëpp gëm nañ ne réew mi réew mu war a développé la réew mi réew mu war a changé la réew mi réew moo xam ne maanaam ñi koy yàq ñëpp mooy cinquante ans jëm kaw la ci ëpp ci ay politiciens yi nga xam ne ñu ngi fi woon. parce que si seen bureau la ñuy toog di dogal ay ndogal yoo xam ne bu sottee ñu taal seen i climatiseur tëj seen bunt du ñu yëg li xew taal seen internet bàyyi gendarme yi ak police yi ak militaires ci suñ kaw. ñuy sànnanteeg ñun xeer te ñoom nekkuñ suñ noon ñun nekkuñ seen noon lii nag bu demee ba nga xam ne si population bi jël na ko teg mu am ci population dafa war ñiy nax état ñu génn ci li ñuy sol ci bopp état mooy première Ousmane Sonko mii bu génnee mën nañ koo jàpp naa réew mii ku fi nekk ne mën ngaa jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko te tigga du toj waxoo am. réew mi ku fi nekk ne mën ngaa tere Ousmane Sonko dem élection te tege di toj waxoo am réew mi ku fi nekk ne mën ngaa tax ndaw ñi duñ ànd ak Ousmane Sonko ko la am beneen bi dossier yi përëx përëx përëx yi ñu def yépp dañoo ubbi mbir moo xam ne mooy wane yow ndaw mi nga xam ne defal nañ la non votant nga dem voté ji ci biir loolu am na ñu bëgg a naxasal xelu gone yi bañ concentré wu ci dossier bi. ba duñ tara dem di bindu jëg yi mel noonu ndax ñàkk sago ci Ousmane Sonko ñu gaaw ubbi dossier dossier boo xam ne rey nañ ci ñaari nit ou ñetti nit génn ci nit toj otoom yaa ngi dégg toroxal ko ci yaa ngi dégg maanaam euh, mu feebar tëdd hopital bay am njortu ci yaramam ne am na lu ñu ko sotti loo xam ne nii amul kóoluteef ci loolee yaa ngi dégg jël ci ay nit tëj leen wax ci ay nit ne ay commando lañ yaa ngi dégg dem banaan dem banaan maanaam ki nga xam ne moo yor moo yor mooy mooy mooy mooy procureur de la république su demee bay jël maanaam wax ne euh, comment adresse euh, jàpp nañ kenn lu jëm ci wàllu mystique loolu maanaam ban ban ban ban lum lum joteek man sama laaj ca laa wax lum jotee ak euh, comment adresse ak ak ak violence mystique maanaam téye course ñaan nit lu mu jotee lu mu joteek leneen ci sama xalaatu bopp beneen bi ci des li ñu def si seen xel yi pour mu leer génne leen ko ci seen xel yi mooy Ousmane Sonko dafa ëpp ñuy galaaj dafa njëkk a jug dafa njëkk a jug nii wallaahi azim li ñu def seen xel yi ndax na leen Ousmane Sonko phénomène bu yàlla indi leen dimbalu yàlla la ci ñun. moment même moment bi ko yàlla indee mooy mamaat bi Sénégal war a développé. Mhm. yàlla jox ñu pétrole jox ñu gaz zircon bi génn développement yi war a ñëw tubaab yeeg américains yeeg ñëpp dañu xëccoo yaa ngi dégg. yàlla ci la fëlal phénomène bu ñuy wax Ousmane Sonko wan ko ne ko lii ma fëlal pour Sénégal yow yaa koy lii nag pour nga accompagner ko nattu yi ma tegoon mag ñu baax ñi ba mu bañ muñ ko ba seen mën leen topp nattu yooyu laa dañ teg njaaloo ñu xool ba nga ko ci tut rafut yokkatut tolloon fa waroon a jooyee jooyut parce que nit ñi nee nañ ki nar a dooni buur ëllëg heure bu jooyee rek jàppal ne kii kii kii mënta jiitam réew Ousmane Sonko attan réew la koo xam ne ñu ngi tëj sa vitre oto nga toog fi nga toog rafoo tiitoo dawoo lijjantiwoo sax ki koy def te nit la comme yow nga ko jàppee kon kii ku ko jox Sénégal mu avancé Sénégal ñii fi nekk ñoo mérito wut jiite réew mi lu passé 2024 dañ leen fi war a jëlee indi ki nga xam ne moom mooy yaakaaru ndaw ñi mooy yaakaaru askan bi yaakaaru mbooleem population africain muy président Ousmane Sonko. d'accord yaa ngi koy wax sànq euh, ci li.